léeg-léeg nga dégg baat boroom tudd ko euh, nga bàyyi ko baat ba soppi ko di façon rek dugg ca deretam di ca wër rek bu juree doom mu topp doom ba di ca wër rek waaw lu dul ka tax baal na la rek doom yàqu sët yàqu loolu làmmiñ bu sawar jaru ko ak nañ du sabar jaru ko ba moo yi di ko yare xàmme